wasalaatu wasalaamu ala rasulillah ñu ngi sant yàlla di julli ci yonent bi beneen yoon dolli ca la julli woon ci moom te muy ndigalal borom bi inna allaha wa malaikatahu yusalluuna ala nabi ya ayyuha alladina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima شجرين مولانا شيخ الإسلام حي إبراهيم النص تي بري يمبري لون أي سنتي الله تي بونك جروبي لخبوخ نه حبلا لمن علمنا في البقرة أحكام حج بيت الله حين ذكر الحمد مطلقا لذات الباري nekk rek santee la ko yàlla moo tax bu ñëwee cant yi ñu am ñun mooy cant yi mu santeewul yàlla rek ndax moo ñu gën a xam yàlla ndax moo ñu xamal yàlla di ci toftal ci cant googu julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa gën ji كي تفضل الشيخ الخطب الكتبي الشيخ أحمد التجاني رضي الله تعالى عنه برم فيضة بجك بوم صبي الله مدوى الله الكوتي تالي بمبي خليفان بي مولانا شيخ الإسلام حاج إبراهيم ياس سنتي الله مباح تي موم bi nga xam ne mooy xalifa Cheikh Ahmed Tidiane ci lu dul benn sikk is na di xalifatu Tidiane mawhibatan min ahmadil abdan jaww ji pour di jàng bayt yi waaye dañu indi chatre rek ci wax yooyu di nuyu suñu xalifa الشيخ محمد الماحي خادم الأمة ومفسر العظيم nga xam ne yàgg nañoo bégal ci téere yàlla bi di ñu ko firil ci anam goo xam ne anam gu mucc ayib la ñëw indi kalima boo xam ne ki ko moom mooy suñ baay Ahmad Bukaar ñag tey ba ñangeen su fi toogoon waaye buy tànn di ñu ko dénk mag sumay rak rawatina Cheikh Ahmad Bukaar ñang mii toog suma wet xam ne daaw moo ko jooxee woon te bi mu ko jooxee daaw toogoon ne fii ñaanal ñu ne yàlla déwén yàlla fekk Cheikh Moustapha suñ mag mu di ko jooxee comme na ko daan jooxee mbooloo mi yëpp ne amin la chëkkane suñu xalifa bii waxoon na amin ci ñaan googu moo tax yàlla dafa ñu tawfiq ren ñu mën a ñëw toogaat toogaay bii suñ mbokk al imam Ahmadul Maahi ñu koy ci teewaayam ci ndigalal magam ak imaam ci teewam moom ci boppam jox ko hadiya waa Tayba ñangeen ak li aju ca ñoom ci ay taalibe waaye bi ñu egseat mu jóg ñu dem defee ko dañ ko daan defee jëm ci imaam al akbar Cheikh Sidiar Ali Cissé al imam jox ko ko te sëriñ bi xalifa Ahmad Bukaar ñaan loon na la daaw ñuy am yokkute daay man di ful suñuy xadamaat suñuy hadiya suñuy ziyaara te dafa mel ni ñaan googu yàlla nangu na ko ndax lañ amoon daaw su nañ ko am nañu ren quinze millions six cent mille su taxutoo ak li mu daana Cheikh Ibrahima wax ne liggéey sëriñ ngi ngistal mënu caa am maa ngi lay defal ci yàlla di la wan ne la lay ma di la ko wan mu ne loolu ngistal ngistal mënu caa am di def ngir yàlla di la wan ne maa ngi lay defal ngir yàlla te def googu ñun ñoo ciy tonoo ndax lépp ci ñun lay delluwaat suñ baay suñ nijaay Cheikh Mouhamadul Mahi nga xam ne mooy mooy xalifa bi tey su ma waxee mooy suñ baay itam juumuma su gërëmee rek Mawlana Cheikh al gërëm la ndax moo fi toog tey ñu koy ndokkeel ak i rakkam jiital ca Cheikh Mouhamadul Makki Cheikh Mouhamadul Mahdi ak rakkam yi yëpp toog fii di nuyu magi taalibe yi Cheikh Mouhamadul Mahi ni nga xam ne toogaay bàyyam la toog tey loolu tax ma wax ne mooy suñ mag di aw ci lefam ci gàttal gi mu def nii di ko jéem ñun itam ndax sëriñ bi ñaanam ak ndénkaaneem moom lañ gën a soxla fii waaye lisaanu xaali taalibe yi fi teew yëpp tey li muy wax mooy ne ñëw nañ ci suñu déngiree sëriñ te bu ñuy dem dañ ànd ak bépp xiw dañ ànd ak dollal ki ñëw ak ki ñewul yeb xamna na ne ziyaare baay ziyaadatu rek mo ci mëna juggé ñi ñëwul sax seen lisaani xaal mu ngi wax la talibé bay ba yam min madina wa in dafarta bi raqi li zawi al fa fasif lahu ashwaqi demal madina boo demee yóbbuwaaleel suma mbëggeel ci Medina te bu ñuy wax mbëggeel ci Medina bàyyi bi fi nekk tax kon mu ngi mel ni dafay wax ne yóbbul ma suma cofeel ci Baay Ñas radiyallahu taala anhu fasif lahu ashwaaqi loolu la taalibe yëpp wax tey jii Baay boobu nga xam ne melalee nañ ko nu ne te melal yëpp mu xëyoo ko wa bihi shariatu ci moom la sharia matee wa bihi alxaqiqatu ba tey alil bunyaani ci sharia itam تمكن صيتها وبالشريعة تمكن صيتها وبالحقيقة قد بنيانها كوكو موي سوني سيري دا خامنا شريعه لا ييكاتي كو حقيقه واخوني كو ناخ موي ابو الفيضة مو نال لا ييب اتباعي بري من الشرك كغنا نيو تي سوي طالب مو تي بوكالي لولو ديكو واخ تحصيل الخاتمه nga di ko amalaat wala lo ñep xam nga di ko wax waye dañ koy wax rek pour barkelu ci jotay bi xalifa si ahmad bukaar ñang mo ne serigne bi ñu ngi gorat sewet benen yoon di essa suñ talibé mo muqaddam yeb ak talibé yeb di ñaar yalla nga nangul ñuko ndax bo nangoo rek mawlaana cheikh ibrahim nangu te bàyyi radiallahu taala anhu wax na ne ñi ko xidma ñi ko liggéeyal jot nañ seen càkku seen càkkuteef àddina ak àllaaxira loolu danañu yóbbal te toog naa ca Nigeria ci suma weti nijaay alxalifa Cheikh Ahmed Tidiane kenn ca nga fa toog ëpp fa alal ne Baay Ñas moo ko jàllaloon loolu waxoon na ne ku gudd fan da nga gis ci képp ku gudd fan danga gis ci ngoor si toog lu héeme mu ne may dem ba bokk ci ñi ëpp alal fii ci réew mi ba suñ buur bi sax ñu invité ko saoudien buur yi màkk yi ne ko comme invité nañ dana indiwaale ci avion ko la ko bàyyi waxoon lëm ko digoon ne bu guddee fan danañ gis ci moom lu yéeme ba muy yóbbaale ay buur sax ci avion bokk ci ñëpp alal ci réew ma kon bàyyi moomu koy liggéey rek war nga seenu ne sa pay noonu la ci àddina njëkk àllaaxira te fa la fa yàlla moo ëpp xam-xam itam waxuñ ko tabeem waxuñ ko ndax xulafaawoom yi sax li ñu leen di indiyal ci seen hadiya baay di seen sëriñ ci jàmm yàlla yi lañ koy defaat

man damay wax ne lépp lu mu ñu digal rek man dama koy gaaw a gis ci waxi Baye Niass radiyallahu bi mu toogee lu mu doon wax te njëlbeenam dimbale leen ma ci teggin adabal adaba yàlla saaliki waaye boo ko wax yow ki soobu jëm ci yàlla waaye waaye teggin teggin loolu la commencé ay discours am teg ca liggéey xabtal nañu ci liggéey orienté leen ci mbay ak def leneen ak leneen ak leneen loolu mooy waxam kàddoom yu njëkk te liggéey jaamu yàlla la loolu daf may mbay sax ma fàttaliku lu Muhammadu lu Cheikh Abdoulaye waxoon ne bi fayda tàkkee nit ñi naan ci xam yàlla bay jàngal leen te am na jamono amul sokk ko topp toppal laxdar yi ñuy jàng moy jàng moy topale mu dem ba fo taxaw ci adina bi gis ay talibé yo xamné ñoy jàngale fañ dëkk koku mo defal suñu khalifa bi di bayam motax lu ñuy digal rek Cheikh Baye radiallahu taala lu moñu ko digal te danga koy gaaw gis ci waxam liggéey boobu ñuy dénk waxamul Cheikh ulu Cheikh Abdoulaye dafa wax ne bi xam-xam amé fayda tasaaroo nit ñi gëm yàlla gën a gëm yàlla Baye dafa wax ne maa ngi dem Koosi ñaar ñii buñ ma fa topp koo xam ne bu jumaa ji noddee duñ la fa gis buñ ootee wasifa wi duñ la fa gis bu ñuy ootee liggéey ci tool yi te yàlla tax duñ la fa gis mu ne ñaar ñooñu bu ñu amoo toog fañ toog jarul ñu may topp Koosi mu ne boobu bàyyi mu doon defar iqtisaad économique jël sëñ bay yóbbu laabaro jël bàyyi Cheikh Omar Touré yóbbu fële jël bàyyi Cheikh Ibra Fall yóbbu fële ñoom itam ñuy bàyyi mu ne mu sëñ bi mu ngi defar économie moo tax suy bi bu ñëwee di ñuy xas di ñuy digal ñuy góorgóorlu ci liggéey dañoo war a xéwal bu rëy la ñuy indil Chérif dafa waxoon taalibe bi neneen boo demee ci Miftaax Saadal Abadiya yónni ci ab leetar boo xam ne chérif bi dafa wax taalibe bi ne leen na ngeen góorgóorlu na ngeen liggéey ndax bu ngeen ñàkkee walalu leen seen bopp la ngeen gën a bugg ca leen di seetaane di jaaree pour ndawalal leen ko mu ne lu ñu lay wax sa sëriñ bii bu mënoon dara lii dana nekk sa situation mu ne waaye boo liggéeyee ba mënaan sa bopp mën a def parce que sëriñ bi da ko topp ngir yàlla te ci yàlla la la oo oo ci àddina rek mu ne nag boo mënalee sa bopp seytaane du la mën a jaar foofu loolu rek jar na liggéey ba dee comme ni ko sëriñ bi di jigéenee jigée diglee daa iman di roy suñu nijaay Cheikh Mahamadul Maahi maam sëriñ Mbay magi taalibe yi di ko jéem a roy ci gàttalam ci gàttalam nañ sofee suñu gàttal gii ren du ñu fi jéem guddal sax ñun wala ñoo ñëw ci pay Mawlana Cheikh Ibrahim di fi jàngale waaye ñu wax rek ne ki ñuy yónni mooy Ahmad Bukaar mooy xalifa tey ba ñangeen ay baayam ak i maamam taalibe lañ fii ci kër Ahmad Bukaar mu mag ma taalibe Alxaj Abdulaay bàyyi xalifa jox na leen lijaasa njëkk bàyyi fekk waaye bi Mawlana indee faydam bi ñu naan ci bàyyi seen lépp doy na xaj ma ab dina bàyyi yow laa yaakaar fii yow laa yaakaar àllaaxira man bëgguma lu waaw benn càkkuteef laa am su ma jàng su ma jigéen ñi ñëw seen borom kër lu dul loolu awma ma beneen soxla li nga bëgg laa bëgg li nga bëggut bëgguma ko yow laa yaakaar ci àddina ak àllaaxira sëriñ bi lay wax loolu man yéen lañ yaakaar àddina def te tawassul ci buntu Baay radiyallahu taala anhu mu nangul ñu suñ taalibe yàlla yàlla guddal seeni fan asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu